Vous êtes bachelier ou étudiant des séries scientifiques. Vous aspirez à devenir un cadre polyvalent, capable d'appréhender les nouveaux défis qui gouvernent le monde des sciences et de la technologie. Entrez dans la grande histoire de l'école supérieure de génie industriel et biologique. Votre formation est assurée par des universitaires certifiés CAMES, avec plusieurs années d'expérience dans le domaine. ESGIB vous offre une formation dans les filières suivantes génie biologique génie des industries agroalimentaires génie des industries chimiques hygiène qualité sécurité et environnement génie des procédés industriels les inscriptions et réinscriptions se poursuivent nous sommes à Sacré-Cœur 3 extension en face VDN Pour tout renseignement complémentaire, appelez-nous au 33 867 02 03, 33 867 02 03 ou au 77 094 05 75, 77 094 05 75, email esgib sub@gmail.com. Égypte, la lumière du xam ni moo gàllankooroon émission bi euh, ba defuñu ko ci bis bi ak ci waxtu bi ñu ko doon amal waaye tey euh, ci euh, alxames ji dikk nañ ci ak yéen li ko waral nak bokk na ci cër boo xam ni télévision Futur Média jox na ko ay téléspectateur am ba nga xam ni rendez-vous bu mu diggee ak ñoom daf koy bëgg a matale loolu moo tax ñu def suñu kem talaay kattan ba tey ci gan gi nga xam ni moom lañ leen digoon muy Barthélémy Diaz moom itam mu nangul ñu ko dellu siwaat ñu ko ciy remercier bu baax tey moo doon suñu gan moom mooy maire bu Sacré-Cœur Mermoz Barthélémy la ñu recevoir mbokk yi tey ci seen émission Faram Facce ak télévision Futur Média monsieur le maire maa ngi lay maa ngi lay fay Papa di nuyu euh, mbokki téléspectateur u TFM. Mm-hmm. Euh, di sant yàlla yàlla may ñu euh, possibilité ñu mën a def émission bi. jërëjëf Barthélémy wax naa ko léegi maire moo Sacré-Cœur am na ay coow yu ndaw rek ci côté wàllu. wàllu people lu ñu ciy dégg euh, ci ay appartement meublé ba ñu dégg ci ay xale yoo xam ni toll ci vingt cinq ñu jàpp leen ñu ngi wax ci côté Mermoz Sacré-Cœur yooyu la euh, euh, appartement meublé yi nekk est-ce que coow boobu dégg nga ko mooy affaire homosexualité yooyu affaire góor jigéen ñooñu nga xam ni jàpp nañu leen. waaw dégg naa ko comme je pense que sénégalais yëpp ni ñu ko déggee. Mm-hmm. effectivement dégg naa que ça s'est passé à Mermoz. Mm-hmm. donc dañ koy ñaawlu dañ koy ñaawlu parce que. dama koy faral di wax nee naa homosexualité dafa nekk euh, lu nga xam ne ni duñ ko mës nangu Sénégal parce que diine nanguwu ko aada nanguwu ko euh, man mii sax euh, je même dire que en tant que catholique démb maa ngi doon seetaan benn chaîne européenne ma dégg benn commentaire bu ñu def sur le pape ma ne ah xanaa dañu juum parce que suñ juumulee tamit je pense que maa ngi jégalu nag parce que en tant que catholique. euh, le pape est le, est le chef de l'Église. Donc, euh, je répète que, et, rappelle, et rappelle aussi que même la Bible ne reconnaît pas l'homosexualité. Donc, mariage entre euh, deux sexes qui ne sont pas euh, différents, Koku, euh, Bible, Tamit, euh, Santuko, d'accord Donc, personne n'a le droit de d'encourager ou bien de soutenir des démarches de cette nature. ni mën na mën dara ci image yu commune bi nga xam ne yow yaa ko jiite est-ce que vigilance aussi bu fekkonte ni am na ci c'est vrai mënuloo fu nekk nga taxaw fa yooyu est-ce que jàppaloo ni am na peut-être benn culture. boo fa mënoon incarné wala benn vigilance boo xam ne waroon na mën a tax lu mel noonu mën la bañ a échappé ñu naan ay mariage góor ak jigéen mi ngi amee ci commune Barthélémy. d'abord ci commune Barthélémy il faut xam ne ni benn pouvoir de police. Mhm. la. bu ci tegu su ma juumlee tamit ci lu ma lire dañuy wax ne ni que la plupart de ñu ñu jàpp noonu dëkkuñu ci commune bi. Mhm. ils viennent de la banlieue. Mhm. mais euh, je pense que c'est un phénomène de société. il faut qu'on puisse en discuter parce que euh, bitim réew dañ ko bëgg a tey légaliser tey am na sax des lobbies apparemment assez puissants. Mhm. ñu jotu ñëw fi Sénégal bëggoon ñu légaliser ko. je pense que kooku tamit dañ ciy jaajëfee le président Macky Sall parce que à le président Obama. Mhm. Le président Macky Sall avait dit clairement qu'au Sénégal, ça, ça ne serait pas accepté. Mhm. Et je pense que côté boobu man je soutiens le président Macky Sall. Mhm. parce que bokkul ci suñu diine bokkul ci suñu aada. donc kooku dañ ko nar a ñaawlu et tamit nit ñi tamit jéem a góorgóorlu tamit di di waxtaan ak seen ay doom. ñu waxtaan ak seen ay doom parce que l'éducation je pense que malheureusement aujourd'hui beaucoup de parents ont démissionné. et je pense que ces parents doivent revenir à la charge assumer leurs responsabilités parler avec leurs enfants. ñu xam ne ni que lii. Euh, jaaduwul jaaduwul mm. du ci diine du ci aada rafetul. d'accord euh, mais discours bi yaakaar nga mën nga ko yaatal aussi ci commune ba mën nga ko fa yaatal peut ci ay ay waxtaan ak euh, sensibilisation euh, ba yu mel noonu. waaw peut-être je pense que mën na nekk mais tamit damay rappeler tamit que en tant que maire bokkul tamit ci suñu compétence transférée. Mm-hmm. Mm-hmm. ñun nous avons neuf domaines de compétence donc juróom-ñeenti domaines yooyu. doo ci gis benn domaine wala wala wala par exemple pouvoir de police voilà amuñu pouvoir de police et je pense que tamit ñu ngi féliciter tamit ñu ngi féliciter les services de sécurité yu nga xam ne ni ñoom ñoo def irruption foofu euh, ba arrêter leen parce que euh, ce qui va se passer c'est que dañuy encourager d'autres jeunes mm-hmm. à faire ça en pensant que c'est normal et ce n'est pas normal mm-hmm. D'accord alors ci leneen loo xam ni dañ ciy des ba tey ci sa ci sa commune euh, gis nañu je pense su ma juumul ambassade bu Guinée ci sa sa commune aussi la nekk ba tey mm-hmm. Euh, bu niki démb ak tey mën nañu wax ni am na ay événement euh, yu bëri yoo xam ne manifestant euh, manifestant yi ay guinéen lañ yu dëkk Sénégal foofu lañ koy defee li ko waral xam nga ko hmm. muy élection yi nga xam ne moom moo am Guinée ak fi tendance yi toll moom mooy li nga xam ne moom moo ko indi ñoom ñu jàpp ni Alpha Condé dafa nar a beneen troisième mandat ci sa commune la loolu amee ba tey ndax soutenir nga leen ñoom ci xeex boobu bu baax a baax dama dama xawoon jàpp dama amoon inauguration benn poste de santé. bu ñu tuddee euh, l' ancien directeur général de la CMU euh, Seydi Aboubacar Beng. moo tax fekkewuma loolu. wante euh, maa ngi ñaan guinéens yi nañu organiser marche déposer seen demande à la préfecture. boobaa je pense qu'il y aura plus de Sénégalais que de Guinéens qui viendront manifester parce que lu xew Guinée dafa ñaaw pas que pour Guinée dafa ñaaw pour Afrique euh, lu xew Euh, Guinée ñu koy ñaawlu un peu partout en Afrique particulièrement de l'Ouest doo ko dégg fenn Europe doo ko dégg fenn États-Unis Amérique mais ñoom gënuñu africains yi au nom de quoi africains yi noo continuer di subir yu mel noonu te dama koy yàgg yàgg naa ko wax ne naan ko ils le font ñu koy def en Afrique dañ koy def avec la complicité de certaines puissances occidentales loolu mooy dëgg. waaw mais population bi aussi am nañ ci wàll. parce que bu dee Guinée euh, bi bi ñu koy revoir ñoom ñoo ko voté ñoom askan bi ci boppam. mais ñoom aussi am nañ ci responsabilité askan bi c'est vrai mën nga wax ñi nga xam ne ñoom ñooy élite yi mooy chef d'état yi mais est-ce que am nañu responsabilité euh, ci li nga xam ne mooy xew ci ci ci Afrique. mais constitution bu Guinée mayul président Condé mu def troisième mandat loolu mooy dëgg il ne peut pas faire un troisième mandat te président Alpha Condé. mais président Alpha Condé dafa. mais est-ce constitution bi may na ko sax lu ëpp troisième mandat fi mu nekk nii bu bi. dafay mel ni par exemple mi ngi doog a def beneen mandat moom. ci constitution xam nga xam nga euh, nous sommes pas des académiciens xam nga tey Sénégal ñu ñëpp d' accord nañ que président Macky Sall narul munti def troisième mandat tout le monde est d' accord c' est deux mandats consécutifs on peut pas faire plus que ça mais vous allez trouver di nga fi gis ay soi-disant ay constitutionnalistes di nga fi gis soi-disant ay techniciens de toutes les questions des savants de toutes les questions yu ñëw di pour démontrer le contraire. Mm-hmm. benn comme le peuple guinéen ou le qui à 60 ou 70 pour cent est analphabète on les garde ci analphabétisme boobu dañuy def en sorte ku ñu bañ am xam-xam pour ñooñu ñu a sax di mën a xàmmee ak di ràññee pour ñu mën def lu leen neex mais loolu dafa ñaaw soo gisee man may gën a indexer les puissances occidentales mais ci dëkk yooyu ñuy wax ne ay Guinée ay Sénégal mais où son les intérêts occidentaux et comparé aux intérêts même locaux et mhm. nationaux. Mhm. Mhm. tey su ñu xoolee tey léconomie économie nationale sénégalaise ñu seppi ci wala ñu jël économie nationale guinéenne ñu seppi ci les intérêts de la France. les intérêts des États-Unis lan mooy des ci économie bi lu ci des du bëri. ci koom-koom donc tey ñun ñëpp gis nañ France nu mu jógoon dem jëli ji Gbagbo ba indi armée française ba armée française ñoo dajji buntu pale président Gbagbo génnee ko. parce que France dañu amoon intérêt pour que Gbagbo bañ a nekk président tey Ouattara lu muy def bi Côte d'Ivoire sañu ko amul sañ-sañ di ko def sans la complicité de certaines puissances occidentales. ah non mais bul bul wax loolu dégg nga li ko Macron wax aussi. non non non euh, dégg la ñu mën a dégg ci lu officiel. donc boo waxee ni loolu daf koy def ak complicité France te nga dégg propos yi nga xam ne Macron wax na ko ci euh, Côte d'Ivoire loolu loolu mun ma ko mun mun mun ma comprendre loolu. mais Papa Ngagne les propos de Macron ne sont pas des propos sincères dama koy wax ci tubaab parce que je m'adresse aussi à des à des à des gens qui doivent comprendre ce que je dis si Macron était sincère le président français il aurait dit que la France ne reconnaîtrait plus de gouvernement issu de coup d'État constitutionnel comme la France a déjà eu à dire qu'elle ne reconnaîtrait plus de gouvernement issu de coup d'État militaire Et depuis lors, il n'y a plus eu de coup d'État militaire en Afrique. Et même quand il a des coups d'État, ils le rendent aux civils. Mmh. Ça veut dire que la France, mmh. l'Union européenne, les États-Unis doivent comprendre que ont intérêt à ce qu'il y ait la stabilité en Afrique. Mhm. parce que ce sont les plus grands perdants. mais pourquoi nga bi mooy la vérité c'est que si la France ne voulait pas que Condé brigue un troisième mandat il ne briguerait pas un troisième mandat. C'est idem aussi pour Ouattara. Suivez France 24, suivez les chaînes françaises, on n'en parle même pas. On est en train de ngi ñu ngi rey on est en train de massacrer le peuple guinéen on est en train de tuer les Ivoiriens les, médias français n'en parlent pas ils mettent des petits messages en paradoxal grand li nga bëgg a expliquer parce que euh, Europe bu amee pouvoir hmm. ku ñu bëgg nga nekk président Afrique yaa fi nekk yaa fi nekk ku ñu bëggul nga nekk fi doo fi nekk mais loolu man mënu ma comprendre yow aussi loolu mu nekk loo xam ni gëm nga ko quand même loolu war que mën naa la xam nga Alpha Condé première fois bu mu nekkee président Guinée premier tour il était en quelle position troisième position Guinée seen constitution nee na entre le premier tour et le deuxième tour c'est quinze jours ñoom entre le premier tour et le deuxième tour ils ont fait trois mois avec la complicité de qui le numéro trois est devenu numéro deux et après au deuxième tour il est devenu président de la Guinée Condé musul gagner élection Guinée musul am C'est ça la vérité. Je n'indexe pas la France, je n'accuse pas la France, mais la France doit être interpellée. Parce que wax ji mooy lan. D'accord. Si la Côte d'Ivoire explose, mm si la Guinée explose, si le Sénégal explose, mais parlons pendant qu'on y est parlons des intérêts français dans ces économies. mais c'est-à-dire yow da nga sori waxuloo ma CEDEAO waxoo ma directement France nga. voilà pourquoi non la CEDEAO mérite notre mépris. je parle pas de l'Union africaine sont tous xam nga na ma yàlla baal xam nga nit ku ñuul dafa am dafa am nattu mooy su ñu nekkee ñoom seen biir ils excellent dans la médiocrité ils se comportent comme des misérable comme si c'est une religion mais suñ soo leen jëlee nga seppi leen dugal leen rax leen ci ay tubaab foofu nag la seen xam-xam di jóg c'est des complexes maa ngi déglu nag mais dama koy wax moi la chance que j'ai peut-être eu man dama màgg ak tubaab yi j'ai quitté ce pays j'étais jeune j'avais 14 ans à peine ma màgg ak ak ak ak ak tubaab yi ma xam leen ñun suñu woojur yi ak suñu maam yi nu ñuy xoolee tubaab yi ak ñun ñu ñuy xoolee tubaab yi bokkul. Mm-hmm. ñun tubaab yi dañ leen respecté wante faale wuñu leen. Mm-hmm. ndax ëpp ñu ñu xam-xam gënuñu gënuñu xam lu baax gënuñu lu bëgg lu baax. Mm-hmm. wante nag nangu nañ leen ñoo ñëpp doole. ëpp ñu koom-koom wante suñu ko gesto bu baax a baax mais tey xool leen tey ci Covid 19 Covid 19 France dem. ba ne Afrique yépp kenn du dugg ci ci réewam benn pays africain noir kese benn pays africain noir kese kese kese moo amoon droit dem France mooy Rwanda ana France ak Rwanda balaa ngay wax France ak Rwanda nga wax France ak Sénégal nga wax France ak Guinée nga wax France ak Mali nga wax France ak Côte d'Ivoire mais parce que Rwanda la ñu respecter parce que le président du Rwanda il se fait respecter mais quand vous avez des présidents ici sàcc lañ fi nekk di bañ a wax dëgg seen askan di tappale ak di kàcc ak di dëpp élection mais ñooñu ñooñu il faut qu'il s'accroche à la France parce que seen biir dëkk amuñu légitimité fan nga gisee démocratie président dina doon rey askanam pour rester au pouvoir ça dire que tey si l'armée guinéenne ne réagissait pas Alpha Condé du fanaan Guinée mais l'armée guinéenne tout de même elle n'a pas été créée pour massacrer le peuple guinéen le président élu de la Guinée aujourd'hui s'appelle Cellou Dalein Diallo c'est ça la vérité Ah, mais li ngay wax ni ingérence la aussi. ce n'est pas d'abord non d'abord non non non d'abord d'abord lii euh, par exemple ay propos de trop laa ko mën a jàppee euh, ñoom ñi ngi xaar seen ay résultats définitifs mën a génn. Hmm. yow nga bëgg a taxaw bëgg a déclarer ci réewu jàmbur euh, que ni diw moom mooy président demoo ci vote yi gisuloo par exemple dépouillement yëpp ba mu ba mu mat tendance yi nga dégg nga bëgg a joxe loolu aussi wax ko jàpp nga ni aussi loolu responsabilité la. d'abord te aussi doon n'importe qui jàmbaar yow nekk nga fi député ci propos yi nekk na ay propos yoo xam ni yu yu yu yu ànd ak responsabilité la. Papa Ngagne xam nga tax may wax su la Guinée. parce que la Guinée waaw ah non mën nga ci wax. non mais dem ba désigner que ni diw mooy dem ba désigner dem ba désigner xam nga tax. waaw parce que Alpha Condé n'aurait pas dû être candidat Papa Ngagne. c'est la vérité il n'aurait pas dû être candidat Alassane Ouattara ne doit pas être candidat. C'est ça la vérité. Et soo gisee ma ci insister parce que c'est le test pour voir si on le copie au Sénégal ou pas. c'est ça la vérité à la seule différence que ñun chance benn chance rek la ñu am benn chance rek ñun la ñu am mooy l'armée sénégalaise n'ouvrira pas le feu on n'a pas et les Ivoiriens n'ont pas cette chance les Guinéens n'ont pas cette chance d'accord l'armée sénégalaise n'ouvrira pas le feu mais imaginez-vous une minute yow xalaatal Papa Ngagne tey suñu nekkoon tey Guinée mu leer na que suñu génnee ci mbedd du ñu doo ay lacrymogène yow xam nga man xam naa Guinée amul lacrymogène moo am ñun fii lacrymogène dañuy daw mm, teg fii bagages yi xaw a eh, mais on sait qu'au finish il y aura pas cette barbarie ce qui se passe actuellement. cest à assurance boobu nan nga ko amee que ni armée sénégalaise du du du fital ci ban assurance bi fan nga ko teg yow. mais parce que sañu ñu ko def quand vous avez des Saint-Syriens vous avez des vous des des officiers supérieurs qu'on fait West Point ñun dañ jàng. je suis désolé hein, je ne critique pas l'armée guinéenne mhm. mais l'armée sénégalaise c'est pas l'armée guinéenne et l'armée sénégalaise il y a des intellectuels qui comprennent très bien que y a des actes suñ ko defee ils vont à la CPI mhm. en Guinée c'est autre chose vous avez en Guinée des officiers supérieurs de l'armée qui sont dans les trafics de drogue c'est pas excusez-moi c'est c'est pas une armée en fait c'est à l'image des dirigeants guinéens mhm. donc aujourd'hui si on donc assurance bi foofu rek nga ko teg quand même. mais c'est mais parce que tey. que am nga ay ay ay ay jàngkat am nga ay voilà quoi ñoo xam ne. jàpp les officiers supérieurs de l'armée sénégalaise sont tous des intellectuels sans aucune exception. tous am na lu nga xam ne ni sen xel mayu leen ko duñ ko sañ a def pour mais au nom de quoi aujourd'hui un général de l'armée sénégalaise ou un colonel. au nom de quoi il va exécuter un ordre illégal d'ouvrir le feu sur le peuple sénégalais du mais bërki démb rek yaa ngi gis dans les journaux euh, que police sénégalaise am na parmi ci ay personnalités ñoo xam jëndal nañ leen ay oto de quatre-vingt-dix millions. yaakaar nga itam loolu loolu nan ban entendement nga am ci loolu yow pour yow. bëgguma ko commenter parce que lu ma ci mën a wax je l'ai déjà dit sur un autre plateau. nee naa le traitement réservé aux officiers supérieurs de l'armée sénégalaise. Euh, on peut par ah, mais, mais non mais nañ ci wax léegi parce que parce que nañ nañ wax ci loolu. waaw mais xam nga ku kuy yoonal troisième mandat. waaw mais fu mu nekk nii fu mu ko yaakaaree yaakaaru ko ci ci ci ay xob yaakaaru ko ci askan wi moo tax du ko du jël xaalis boobu di ko dugal ci ay ci ci ci santé wala ci éducation da koy dugal ci noo ko waxee léegi nii. mais bu ko fa dugalee mais mais encontre contrepartie ñoo lan lay xaar ci ñu mais moom mooy moom mooy xaar. waaw moom loolu laa la en lan lay xaar ñëw. mais tout le monde sait lu mu ci xaar. lan la ci xaar. mais lu muy xaar mooy un soutien la moo venu. vous pensez que. l' mais soutien boobu lan la mën a doon pour yow. mais soutien boobu moo exactement le même problème mu ngay gis ci magistrature ñu jël ay magistrats yu nar a dem retraite ñu leen di maintenir en poste ces magistrats là damay joxe un simple exemple avec ta permission est ce que xam nga mooy budget fonctionnement cour suprême cour suprême du Sénégal son budget de fonctionnement ñaata juge moo fa nekk. il donne peut-être deux ou trois décisions par an maximum quatre cinq décisions par an xoolal ñaata milliards la ñu am ça sert à quoi te seen budget boobu salaire yi bokku ci le la cour suprême ils construisent pas ils réfectionnent pas ils réhabilitent pas oto yi ci carburant bokku ci salaire bokku ci ñu jox leen xaw ma ñaata milliards pour donner trois quatre décisions continuel da nga da nga bëgg wax corruption ça veut dire de la corruption passive aujourd'hui pourquoi est-ce qu'un général de l'armée sénégalaise lu tax il garde tous ses avantages man awma ci problème mais pourquoi pas un professeur d'université pourquoi pas un docteur pourquoi pas un un un, enseignant en quoi est-ce qu'un général de l'armée sénégalaise est plus méritant qu'un autre fonctionnaire de l'État du Sénégal je pose une question je pose une question lu tax tey général armée sénégalaise di dem retraite il conserve tous ses avantages jusqu'à son dernier souffle et pas un commandant ou un capitaine qui lui, il est sur le terrain. Pourquoi pas Alors, c'est comme l'histoire de Terme Sud, je suis désolé. Il y a des gens qui ont considéré que Manak Numa Andel, on a, on, a, on, a, on a déshonoré ou on a manqué de respect aux officiers supérieurs de l'armée sénégalaise. Il faut qu'on se comprenne. On ne vit pas dans une dictature militaire. On vit en république. C'est une injustice, dénoncée. Et il y a des personnes qui en sont responsables. Et la preuve, taille. c'est peut-être même le moment de féliciter Macky Sall, le président, qui a octroyé à chacune de ses familles benn somme de 10 millions. Ça veut dire que ils reconnaissent avoir fauté. En donnant les 10 millions, ils ont indemnisé. C'est ça la vérité. Mm-hmm. Donc qui est le fautif? C'est celui qui est parti sortir ses militaires avec la force. C'est c'est l'armée sénégalaise. Mais mais kon xam nga li nga ci doon dafee populisme la. pas du tout non si populisme non non populisme politique nga ci doon def. parce que xam nga ni li ci président def. yow mënuloo ko. amuloo ko àndal ku ko mën. li ci président def kenn ku nekk mu yëkkati 10 millions def ko ci ñoom jox leen ko. yow bi nga koy def xam nga ni mënuloo ko. xam nga ni donc lan nga ci doon def leneen lu populisme kon est waaw 10 millions yooyu sa xaalis la sama xaalis la. président Macky amul ci benn mérite c'est l'argent du contribuable sénégalais. na def na ko fa mënoon non mais non moo ah, tax mu indemniser non s'il vous plaît beneen bi mais tout de même nañu président bàyyi ñu téléthon suñu président bàyyiwoon di bàyyi ngeen di téléthon mais que pourquoi yéen fii ngeen taxaw yéen non fii ngeen taxaw TFM ngeen téléthon fii benn waaye ba nga xam ne dañ ko condamné pour escroquerie mais bokkul non si mais benn politicien nekk ci opposition bi nekkul ci ginnaaw non non je vous en prie mënuloo par exemple yow Barthélémy Diaz nga ni non damay créer benn téléthon ak benn télé non attends est que yaakaar nga ni loolu xel mën na ko nangu dafa bokk ak non lii c'est social yow am j'ai beaucoup de respect pour ton patron Youssou Ndour il est propriétaire de cette télé je le dis ici à sa télévision de quel droit s'est-il permis d'organiser un téléthon pour une personne condamnée avec une contrainte par corps mais ban kooku kan la s'il vous plaît fan la non tudduma tur xam nga je suis journaliste s'il vous plaît Youssou Ndour moo koy def non tey sos nga bëgg a wax wala kan nga bëgg a wax dama ne quand Youssou Ndour la ailleurs c'est pas du fii lañ ko defee s'il vous plaît s'il vous plaît non attends dama lay wax aussi dama lay fàttali s'il vous plaît le téléthon s'est fait ici ok on n'était pas sur notre planète on était sur terre et au Sénégal le téléthon s'est fait ici à TFM l'état vous a pas bloqué Peut-être parce que notre grand frère, notre ami Youssou Ndour est du pouvoir. Non, non, non, non, non, non, Barthélémy. Vous savez, Pape, non, non, Pape, non, non, oh, tu me connais. Moi, je, moi, je parle sans passion ni, ni émotion. Mhm. Je parle de 79 familles de militaires expulsés. xam nga tey Pape yow même tey soo doon ñibbi sa kër nga gis benn famille ñu leen di génn ci mbedd bi. yow soo mënee droité di nga droité loo ci mën di nga ko def. lu ma ah, fu may daanee fu may daanee du ma ko def ak yow ni nga ko defee. du ma ko def avec les télévisions du ma ko def ak non du ma ko def. jël par exemple seen ay prothèses ñu koy sol ñoo xam ne ñi ay handicapé lañ nga taxaw di par exemple ñoom ci seen misère boobu. nga bëgg ci def sa benn sa benn coup de pub. Pape pas du tout. si Pape est-ce que mën naa la wax dara est-ce que mën naa la wax dara xam nga ci ñun catholique yi lan mooy parrain. Mhm. Hmm? parrain mooy sa pap daanaka ëllëg sa pap su génnee àdduna sa parrain moom moo lay yar moo lay yor man ci famille impactée yooyu mon parrain en fait partie c'est comme si on avait mis mon père à la porte ok je me sens concerné doublement te les te les impactés ñu may dégg man mon parrain il a 76 ans ngeen di ko teg ci mbedd bi. ah mais mais quand il y a 45 ans s'il vous plaît rek il y a 45 ans de cela. moom ma téye dans ses bras yóbbu ma devant l'autel à l'église pour ma baptiser moom bokk na ci gaañ yi donc man su ma ciy dugal su loxo dama dugg ci lu nga xam ne sama yoon mi ngi ci ensuite l'armée nationale du Sénégal il s'agit de son image moi j'ai pas critiqué les officiers supérieurs j'ai dit que ces officiers supérieurs ne sont pas dans leurs droits suuf jooju moomuñu ko mais tout de même état de droit réel mais mais ñi ñu fa jëlee aussi nekkuñu ci seen ay droit dañ fa war a jógee. mais mu na dafal nag. j'ai jamais non dañ fa war a jógee non s'il te plaît Pape Ngagne j'ai jamais dit ils sont dans leur droit j'ai dit ils ont fait valoir un droit de préemption. moi je parle français. non li nga wax ils ont seulement fait valoir un droit de préemption. xam nga au début lan la lan la gars yi waxoon. dañuy mooy jënd bala ñoo jaay keneen nga bëgg a wax. mais loolu la ñuy wax non non amul jaay mais dañuy joxe suuf attribution Pape commission de contrôle des opérations domaniales depuis ba ma koy dénoncé depuis lors mais lu may wax su amuloon mais procureur woon na ma yàgg na Pape toi aussi mon frère parce que tout le monde sait au Sénégal que l'État attribue son foncier lu tax ngay gis les mêmes personnes ñoom ñu rek ñooy am suuf ñun du ñu am suuf non lii problème coopérative la lii problème coopérative la. non non non yow am nga am nga suuf ba am sa tool am nga tool. yow non am nga sa suuf non non ne man am ñu fiy jox 10 hectares. man damaa am 10 hectares di bay soo demee léegi suma tool dugub da gis est que dañu fay liggéey di béy wala dañu fay jaaxaan kon loolu waxtu ji moom féetoon na boor man tey ba may ñëw foofu kenn mësuma dégg xuloo ma ci ak villageois xeex xeexuma ak villageois damaa waxtaan ak ñoom bu juboo ñoom seen bopp ñoo ma jox ma ma xëy liggéey kese du leneen wante tey su ma jógee ma ne tey man tey suuf bi ñuy sax-saxi Sénégal dañ koy joxe à travers une commission de contrôle des opérations domaniales bu coow littoral bu bu muy am mais dégg ngeen si président makisal mu ne il propose à ce que la DESCOS bu nar a surveiller et contrôler l'opération des euh, l'occupation des sols mm-hmm. yow comment tu peux être juge et partie ça veut dire aujourd'hui comment tu peux prendre la DSCOS Pape Ngagne et tu la mets dans une commission qui attribue du foncier et le maire le maire dans la dans sa commune il ne peut même pas avoir un droit de regard sur la distribution de ce foncier ensuite on le met devant le fait accompli ne ko da ngay signer ay permis de construire et on nous parle de bonne gouvernance et de transparence mais il y a un problème man c'est tout ce que je dénonce Donc, pour revenir à notre question, je répète ce que j'ai dit. Mhm. En disant que Selou, Dalin, Diallo est le président élu de la Guinée, si n'était pas le cas, on n'aurait pas d'abord privé les Guinéens au Sénégal de voter. Ils ont toujours voté. 400 000 Guinéens ont été privés de leur droit de vote ici au Sénégal. tey ñoom ñu Guinée di ñaxtu mais tout de même seen yaay yi seen papa yi ak seen doom ñu nga xam ne ñoo nekk Guinée mais ñoom la ñuy fetal. d'accord léegi léegi pour pour fàttali la bi nga wax. fekkente ni c'est pour su fekkente ni suñu suñu xarit boobu Taïb Socé moo tax ngay wax. non xaw ma kan la non non non mais. non xaw ma kan la mën nga nekk ci dëkk bi wax télé non non non mais yow bu ñu la waxee. <laughs> bala ngay wax. Hmm. mais gëstul ci li ñu la wax ba pare. doo ñëw ci télévision nga naan fii lañ ko defee. fii la woon non bul werante càmbaar. ah kon nag juum naa ko. waaw ah, kon juum nga. voilà léegi alors ñu revenir un ci Terme Sud. ak ci euh, téléthon bi. mais téléthon bi dafa déguisé politique aussi lan nga bëgg ñu nang ñu def ko da nga bëgg acteur politique yi ngeen jàkkaar lool bàyyi leen ngeen def seen téléthon ramasser seen xaalis bon ñeen a xam leneen mën na ci rax yaakaar nga ni loolu aussi ci réew moo xam ni réew mu réew mu normal la war nañ bën a bàyyi ay acteurs politiques nekk ci opposition di créer téléthon di di di yaakaar nga loolu logique mën na ko xalaat. man de suma mag Youssou Ndour de mais fii fii bi ñu fi organiser téléthon loolu kenn fàttewu ko télé yëpp ñoo ko defandoo mooy affaire inondation la woon. non xaw ma non man maa xam dama lay wax. Ah inondation la woon ne nga amul kenn ku ñu fi condamné contrainte par corps gars yi def ko fii benn téléthon. si si am na amu fi am na mais amewul de de amewul GFM. amul GFM des médias la ah d' accord peut être. des médias la amee. mais maintenant boobu sax moo gën ci neex. waaw boobu muy amee des médias. waaw mais lu tax kenn terewu ko des médias ñu koy tere maintenant pour le territoire des familles. mais parce que bii lii ku ne xam na ni cas social la est ce que mën naa la annoncer ah bon cas social. non cas social la. cas social non cas social. tu es condamné pour escroquerie. avec une contrainte par corps nga ne ma cas social. Pape Ngagne respectons les gens. non ah, mais non respectons les téléspectateurs. mais mënoo fexe ba du ne cas même même condamné contrainte par corps. mënoo fexe ba mu romb na sax cas social. Pape. cas humanitaire la. Pape romb na sax cas social. gis nga bi su nekkee. boobu pour raison humanitaire rek. ku nekk war nga ci dugal sa loxo pour mu génn kaso. soo ne boobu cas euh, raison humanitaire la. waaw jàppal na ni que bii. xoolal non boo ci bokkuloon yow. boo ci bokkuloon yow par exemple bu nekkoon loo xam ni ay nit yoo xam ni par exemple genre Iran ndaw la wala keneen ñoo xam ni kenn xamu leen ci affaire politique ñoo ko doon organiser. mais compliqué wul. est-ce que xam nga dara je le dis en toute modestie. man ma ñëw dugal ci suma loxo Ousmane Sonko ñëw fekk ñu ci loolu ils auraient même pas eu les dix millions là c'est ça la vérité. Ah non non non si non non il n'aurait pas eu il n'aurait pas eu le président a annoncé huit cent millions. non s'il vous plaît s'il vous plaît le président une fois de plus avec tout le respect que j'ai pour Macky il fonctionne à la pression ok. On se connaît dans ce pays. Il fonctionne à la pression. Donc, il n'a pas fait de gaieté de cœur. Même son ministre de l'Urbanisme a dit que Soudan est membre de CODEF. Bon, donc on ne parle pas de ça. Ce qui est important, c'est que ko de lui, nous avons sarsaché. Nous avons des documents. Nous avons déjà morcelé. Nous avons état de droit réel. Nous avons soi-disant attribué. Donc, pourquoi l'État a reculé pour dire que jël assiette foncière yëpp jox ko à l'armée mais naka ngay jël assiette foncière di ko jox à une armée qui n'en a pas besoin ça la comment une base aérienne sérieuse peut être surplombée par des immeubles comment et ensuite depuis que le depuis qu'ils sont au pouvoir combien de mètres carrés ou d'hectares ils ont déjà spoliés à l'armée sénégalaise essayez de regarder le patrimoine foncier et immobilier de l'armée sénégalaise de l'indépendance à nos jours ngeen xool est-ce que dafa yokku wala est-ce que dafa wàññeeku fii rek camp Leclerc dañ ko sax saxee morcelé ko l'aéroport dañ ko tëj mais pendant qu'on y est pourquoi ils n'ont pas pensé à en faire une base militaire mais ñoom seen biir ñoo ko morcelé ñoom seen biir ñoo ko sax sax. alors que def nañ ko aéroport militaire. voilà kon nag non man tu sais man Pape. moi je ne fais que parler de fait que parler de fait moi je n'invente rien du tout. ok moi je dis seulement logique pour logique da nga a jox armée de l'air de la terre mais lu tax ngeen jël hangar des ngeen sax saxee ko aéroport bi ils ont tout tout tout vendu. mais yow lan wax sax saxee mooy jox ko askan bi pour ñu dëkkee ko loolu mooy sax saxee. par exemple man ma war a am kër wala yow nga a am kër wala keneen am kër demandé ko ñu jox la ko est-ce que loolu nga bëgg wax ni moom mooy sax saaxee. doo fi mës a def Sénégal micro trottoir di fi gis sénégalais lambda dañ ko jox suuf amu fi soo andulee ak nguur gi doo ci jot soo bokkulee ci saax saax bi doo ci jot mais c'est ça la vérité Pape gis nga Pape ce pays là il est temps qu'on se dise des vérités. mais yow wax nga ma léegi ne yow bokkuloo ci nguur gi. yaa ngi nga sa tool yaa ngi ciy liggéey 10 hectares. Pape est xam nga suufu tool kenn dafa dëkk man fa ma nekk amul sax courant. kan la ko bëgg dëkk amul sax courant. amul sax ndox mais suba mën na am courant gis suba mën na am ndox non s'il vous plaît s'il vous plaît moi j'ai investi là-bas je crée des emplois et je travaille et je contribue au PIB de ce pays j'en ai le droit. Mm -hmm. voilà donc moi ce que je dis aujourd'hui je dis seulement que je ne pense pas avoir le monopole de la vérité mais génne bu ñu génnee les familles militaires de Terme Sud ça a choqué tous les Sénégalais maintenant téléthon boobu xam nga ñoom dañu tere des médias ñu def téléthon nangul leen ko mais le téléthon il aura lieu la semaine prochaine sur internet avec une plateforme agréée par la par la par la, par la banque centrale et les gens pourront envoyer leur argent c'est sécurisé plateforme boobu je crois que 3 pour cent la ñuy mais mais loolu kay loolu loolu ngeen waroon njëkkee mu nekk fundraising. mais loolu loolu ngeen waroon njëkkee mu gën a loolu sax moo xaw a gën a ni suma yaay. internet moom mënul dem ci ay plateforme pour joxe foofu 1000 francs wala 5000 francs télévision la xam am na ñu nga xam ne télé la ñu xam donc on a décidé en collaboration avec Ousmane Sonko et Guy Marius Sagna de communiquer inviter des Sénégalais de la diaspora et les Sénégalais qui sont ici au Sénégal ñu mën a contribuer en un jour en okay. une heure en mais, un moment. pour mën leen jàppale mais je pense que ci loolu lay yem ay blanchiment de capitaux blanchiment yooyu du ci du ci du ci rax ak yeneen ak yeneen. nooy blanchir non non je pense que non non je pense dina leer. dina leer pap non dama la laaj rek est-ce que dina dina dina am euh, traçabilité dina am transparence dina leer Pape Ngagne waaw je te parle d'une structure cher ami qui est agréée par la banque centrale bugguma wax tur bi nii su la neexee sax je peux même le dire la structure s'appelle je cotise je cotise et cette semaine on va on va vous l'exposer mais, quoi jox nañ leen 10 millions 10 millions ku ci bëgg am sa kër am sa kër pourquoi ngeen na la yow joxel na ma non non joxel na la yow joxel na ma man pap pap pap xam nga du gën a bon ci àdduna. waaw mooy nga nekk le président du Sénégal. nga toog ne di tere ay sénégalais bëgg dimb dimbali ay sénégalais. loolu moo jaadu mais parce que. parce non, que parce que voie autorisée la voie officielle la pour def ko pour les sénégalais. maintenant damay poser une question. waaw fan nañu bind dans la constitution du Sénégal que le président la République du Sénégal. may nañ ko sañ-sañ mu tere Papa Ngagne dimbali Barthélémy Diaz wala Barthélémy jàppale Papa ko bind non non loolu binduñu ko fenn. non franchement am na ay tur du ma ko sax tudd parce que pour moi il y a des gens qui n'honorent pas la République dañ leen xam depuis jamono Abdou Diouf ñu xam leen jamono Ablaye Wade xam leen tey ce sont les mêmes personnes ils font le même sale boulot ñoo fi nekkoon directeur télévision nationale après ainsi de suite tey ñu leen jox xaw ma ay CNRA. ces gens vous m'excusez du terme. waaw mais pas ma. non non parce que dégg le rôle de la CNRA. c'est pas d'empêcher à une télé d'organiser un téléthon c'est faux tout le monde sait qu'on peut pas lever des fonds à travers un téléthon pour aller battre campagne ñun nu sommes des hommes politiques ñun suñu dem campagne ñun xam nañ fu ñu dem wuti ji ay koppar c'est ça la vérité ñun lu ñu bëgg nu def nii mooy dimbali ay sénégalais. waaw mais ñun am nañ sañ-sañ am nañ droit. mais président de la république léegi li nga bëggoon def sa président de la république na la ko. non une maison j'avais demandé au président wala mu bàyyi leen terrain yi defu ko. wala mu joxe instruction jox leen ay terrain CDC Bambilor les maisons coûtent 15 millions dañ leen jox 10 maintenant ñun ñu ngi jéem a taxale dañ ma dajale le reste pour jox leen ñu am kër dañ leen dàq ci ay kër dàquñu leen ci ay terrain dañ leen dàq ci ay kër yow tey soo amee tey 10 millions da ngay dem Kër Massar jënd benn terrain 7 millions 8 millions mais 2 millions wala 3 millions yuy des mënoo ci mais mënoo ci tabax kër tey 69 familles. quest qu que ça coûte au président Macky Sall de dire, bon, je donne les 800 millions à la CDC yéen ngeen jox leen ay kër ñu dëkk ci ay kër maintenant lu ci des ci ci 5 millions yooyu ay retraité ngeen am ngeen ay pension am ngeen ay doom seen doom ñu ngi jàng ñu ngi liggéey et cetera am ngeen ay mbokk maintenant lu ci des ngeen def ko moratoire et on vous donne un différé de 2 ans. non attends si. mais mais président de la république li mu leen promettre ci les 100000 logements ñoom. sànnaare ay dóor la 100000 logements yi ay dóor la. attends. non ay dóor la. waaw mais nga ko teg aussi. parce que yow dégg nga président Macky Sall son mandat arrive à terme en 2024 day dem il part. il part te xam na ko actuellement wax ma fan nga gisee suuf jooju bu ñuy wax fu ñu doon tabaxee les cent mille ah, la bàyyi nga jàll ci loolu parce que nga wax wax bu ma jaaxal xam nga wax nga ma wax bu ma jaaxal <laughs> man dama la dégg nga ne élection du fi am 24 et puis insister ci oui nga ni par exemple 2024 du am ci dëkk bi du am ci réew mi normalement actuellement lu may gis du ko organiser mais soo ci waxee loolu ba pare nga ni en président c'est-à-dire yow conjugué nga présent conjugué nga au ci sa biir wax Pape moi mon mandat de maire a pris fin en juin je n'ai pas la prérogative constitutionnelle de convoquer le, le corps électoral. tout à fait. c'est le président qui doit le faire il ne l'a pas fait si les Sénégalais considèrent que nanguñu xeex pour loolu man gisuma lu tax mhm. ah, am na fu nga xam ne soo fa tolloo. Ah, ah, xanaa nga bañ am ay mbokk wante soo amee ay mbokk dinañ la dinañ la laaj nga xool sa taxawaay donc tey le président Macky Sall je le répète je reviens à ce que j'ai dit il n'est pas dans une logique d'organiser des élections en et il ne compte pas le faire à la Ouattara ou à la Condé parce que bon tout de même Macky Sall est tout de même plus intelligent que Condé donc il ne compte pas le faire comme ça il compte le faire en jouant avec le calendrier républicain et wax naa ko kooku il l'a fait nga wax ko ci wolof li nga bëgg voilà dama président Macky Sall euh, tey man suma mandat de maire jeex na juin 2019 daanaka man su ma doon wut troisième mandat damay wut troisième mandat juróom juróomi at juróomi yooyu def naa ci déjà benn at. Mhm. des ñeenti at. Mhm. te lu mu bon bon bon dinaa ci def au moins ñaari at. Ah. balaa président Macky Sall di woote élection maintenant lan la yoon wax yoon nee mooy daal la le code électoral nee na entre chaque élection daanaka entre chaque deux élections soo génnee local di ñëw législative foog nga def révision. Mhm. ndax ñu nga xam ne nii. Euh, bee élection amaguñu woon atu voté bii ñu am atu voté ñu mën a bindu donc ñu mel noonu mais yow soo dàqee local ñaari at. mais di nga dàq législative ñaari at. soo dàqee législative ñaari at mais da ngay dàq présidentielle ñaari at. ceci étant dit amoo pour def ko parce que su la neexee nga jël par exemple local couplé ko ak législative wala jël législative couplé ko ak présidentielle. mais lu tax Macky Sall tey di ko def. sachant qu'il n'est pas en bonne posture et puis. mais mais pourquoi pour pourquoi Barthélémy Dias di ko def xam na ni mandaam jeex na ba tey mi ngi nekk maire. Ah. ba tey. Ah. ba tey mënoon nga ni bon sama mandat jeex na. je ah. démissionne après président de la république dafal délégation spéciale. du ma ko def. ah pourquoi. mais parce que yow ngay wut wut mënoo ci jot. waaw lu tax ma la kay jox. Ah, man man non non bu fekkente ni yow li ngay wax bu fekkee li ngay li ngay critiquer président de la république. mi ngi si yow. Hmm. sa mandat jeex na ne ko président vraiment jeex na mandat bi jeex na jëlal délégation spéciale nga dem defi leneen. délégation spéciale mairie kenn du nommé dañuy fal kenn falul délégation spéciale man la ñu fal damay toog ba président Macky Sall woote élection président Macky su woote élection lenn rek lañ ko mën a ñaan mooy na góorgóorlu jël carte électeur jox ko gaañ ok élection yi ñu bañ a dëpp kees yi. ñu bàyyi Sénégalais yi wote ñu xool. mais bu ñu nee woon non troisième mandat yow doo ci bokk. non oh. troisième mandat. mais qui vous a dit que je candidat à un la mairie de Mermoz mais mais. kan euh, la yow yow yow au delà de xam nga problème bi yow yow yow li nga visé sax du du du. lan laa visé visé wu ma dara ville de Dakar. ku la ko wax yow. non ville de Dakar. te xam naa ni am nga courage ni ma dëgg la wala du dëgg. non l'ambition est le moteur de la vie. waaw yàgg naa ko wax même sur ce plateau là. ok wante man yàgg naa ko wax nee naa dafa am fu ma bokk. ci njaboot bu ñuy wooye le la la famille des xalifistes. waaw ma am ñu ma nekkal mais lépp lu may def damay ànd ak ñoom ci loolu. ceci étant dit. ñoom suñu daje woon mais ambition personnelle mën nga ko amal sa bopp loo xam ni bëgg nga ko man waxuma na ville de Dakar. non mais mais laay wax. man suñu toogoon tey. waaw ñu ne ma Barth dañu bëgg nga dem déposer sa candidature secrétaire général des Nations Unies ma dem def ko. Ah, mais man egguma foofu ambition est le moteur de la ville de Dakar laa wax. ban ambition nga fa am tey. mais c'est pas à moi de le dire. Ah, mais yow la concerné c'est à ma ma wax ni ma c'est pas à moi de le dire ambition bi du ambition ma Samba wala ma Demba du bu Khalifa Sall du bu ma Samba du bu ma Demba sa bos la bu ma la ko laajee wax ma. non je pense que parce que li leer ba leer mooy mënuloo mënuloo mënuloo briguer ville de Dakar te nekkuloo maire ci commune d'arrondissement bi kon il faut nga def troisième mandat. non parce que ci seen fameux dialogue politique ils ont ramené la liste de la ville. ça veut dire que tey nu Khalifa Sall jot a falu mu dem directement liste ville gagné loolu la gars yi indiwaat te 2014 président Macky Sall moo ko dindi woon soi-disant pour rendre l'élection du maire beaucoup plus difficile mais comme yàlla mooy buur bu mag ji sur 19 communes Khalifa yàlla may ko ndam ci 16 communes c'était une honte pour le pouvoir. Mhm. donc le pouvoir a préféré ramener la liste pour permettre peut-être éventuellement à certains de ces hommes de gagner certaines communes parce que man exemple maa ngi fàttaliku campagne man gis naa ñit joxoñ ma ne ma yow du ma la votel ma ne ko dëgg la peut-être dafa ma fi dara. Hmm. maa ngi lay jégalu wante nag soo ma voté luulee da ngay da doo yow tamit doo voté Khalifa Sall. ma expliqué ko soo bëggee Khalifa Sall nekk maire de Dakar il faut donner à Khalifa Sall la majorité dans la dans l'écrasante partie des communes. des communes. Hmm. ma ne la nag man ngeen ma mere mais bu leen ma mere. ba ba ba bañ a fal Khalifa. parce que Khalifa. moo jox seen doom yi lait à l'école. d'accord uniforme à l'école. moo taal seen làmp yi moo hmm. defar seen tali mere leen ma nangu naa liggéeyu ma wante jéggal leen ma ko ma góorgóorlu beneen mandat bi. moo tax fal leen Khalifa. voilà en parlant de xalifa Khalifa muy sa leader wax nga ko euh, depuis mu génn kaso ak léegi. gis nañu muy def ay promenade yu ndaw euh, ndax dafa carrière politique am dafa fete ci ginnaawam def ci pare wala euh, lan nga ñu ci mën a wax ci information ci ci ci Khalifa d'autant plus aussi l'affaire ko ku ne xam na ni ci Khalifa Sall la jóge daanaka liñ ci dégg ñeneen ñi sax di soutenir Téliko euh, fekk ko ci moom Khalifa à part benn communiqué boo xam ni def na ko ci est-ce que yaakaar nga itam loolu reconnaissance la. non je ne parlerai pas de l'affaire Téliko parce que pare naa ci waxu magistrature ceci étant dit Téliko est victime d'une injustice et d'une cabale c'est la vérité mais bon chacun son tour chez le coiffeur je suis désolé de le dire tey heureusement que c'est entre eux qui en train de Parce que nous, les Sénégalais, on a été déjà tous rasés la boule à zéro. Mmh. Bon, maintenant, euh, Khalifa Sall, ses ambitions restent intactes. Mhm. ñu ngi def émission bi nii actuellement moom mi ngi quartier général c'est-à-dire que di recevoir ay nit ses ambitions sont intactes Khalifa Sall est candidat pour servir son pays te loolu moo ko dugaloon ci kaso bi te maa ngi biralaat wax ci nee naa am na lu ndaw lu ma ci xam nga may ma rek balaa ñuy téye Khalifa Sall am na lu ma xam ci lu nga xam ne ay proposition la woon te mënoon na ko nangu te nekkoon ay affaire ay ministre ensuite ci kaso bi. non mais li nga wax dafa yomb aussi. Barthélemy xam nga par exemple nekk ci plateau. non non non non non xam nga non non non non non non non mais bi nga xamee ni mënoo fa egg ak man bul ko bul ko junj. non mais non non te non non Pape non moi c'est moi la. mais bul ko mais bu mais bu ko junj bi nga xamee ni yow mënuloo egg ak man ci loolu. pourquoi nga koy commencer. Pape c'est moi ay Khalifa Sall am na lu ko digoon am na nangam c'est au-delà de ministre c'est au-delà de. lan lan est-ce que est-ce que au moins tu peux me reconnaître que c'est moi l'invité j'ai le droit de parler et j'ai le droit de. maa lay déglu d'exprimer mon opinion. maa lay déglu man dama lay wax lu ma xalaat ak nu ma ko xalaatee mais tamit dama am ay limites tëdd naa kaso juróom benn weer ak suma grand am nu tamit du ma ci xam kon nag ku nangul loolu yëpp mënul toog tey di renoncer à tous ces sacrifices pourquoi du ko def ceci étant dit je l'ai déjà dit dans le mois de novembre mais di ngeen gis Khalifa di ngeen dégg Khalifa parce qu'il va redémarrer ses activités politiques ceci étant dit loolu gëwuma ko man euh, xanaa peut-être mu nekk loo xam ni lu may bett lay doon Euh. activité politique pour xalifa sal parce que aussi li olof di wax cin bu naree neex bu baxee xeeñ nit mënuloo génn kaso bi mu génnee ak léegi ñëpp bëgg ko gis ñëpp bëgg ko dégg mu toog jàpp njàmburam ba ba te tubaab di day wax il faut nga battre euh, weñ bi ci moment bi muy tàng pap covid bi moo yàq lu bëri noonu nañ démarré yàgg na man bi wax ak yow nii je serai au Parcelles Assainies samedi le 31 on démarre nos activités politiques euh, nañu ñaan yàlla fekkee talak dal yan ngeen ubbi seen bët ngeen xool ñun suñu wax bëriwul. mais yéen yéen ñan la parce que xalifa xalifa xalifa Barthélemy presque rek ngay gis ah ñi nga xam ne ñaa ngi doon dégg autour dañu ci bëri presque fete na boor bu dee musa Sile bu dee Bamba Fall bu dee ñeneen ak ñeneen li ci ëppoon presque kenn gisatu leen Soham El Wardini est là Babacar Mbeng de Hann Bel-Air est là Cheikh Gueye de Dieuppeul Derklé est là Madiop de Grand Yoff est là je peux continuer les gens sont la ñu nga xam ne dem nañu mais ñu ngi leen di ñaanal parce que tout de même un temps soit peu lim nga fi ay tour mais ñooñu on a on a cheminé ensemble ils ont fait leur choix on respecte leur choix mais fii yàlla ka fi yàlla nekk fi nekk. lu doon yàlla yàlla yàlla béy sa tool ah. waaw mais d'accord yàlla yàlla moo fi nekk mais yàlla yàlla béy sa tool. aussi mais ñu ngi béy suñu tool. non béy seen tool. waaw ñu ngi koy béy ñu ngi béy suñu tool wax naa la waxu Covid naa la le Covid a nous au moins retardé d'au moins six mois facilement le Covid. kooku on peut pas faire fi de ça il y avait l'état d'urgence le et cetera et cetera maintenant lu am ba am yaa ngi toog maa ngi toog nee naa la ci mois de novembre bii di nga dégg Khalifa Sall di nga gis Khalifa Sall actuellement Khalifa Sall depuis tey ci suba mi ngi quartier général di recevoir ay nit man nee naa leen samedi le 31 octobre je commence au Parcelles Assainies le travail au niveau de Dakar ubbi leen seen ay bët ngeen xool. ñun nag tout de même euh, mën nañ bañ am xam bu màcc ci lu bëri wante nag politique nag moom la ñu namp. Mhm. mais loolu dafay dugg ci cadre sa sa sa charme bi ngay charmer euh, ci wàllu politique gis nañu euh, bu yàggul euh, inauguration yi nga xam ni def nga ko poste santé bi wax nga ko léegi lu jëm aussi ci parc sportif bi wax nga ko ci ban cadre ngay ngay dugal. non non pas du tout Pape xam nga yow. su nekkee charmeur toi tu es un parce que tu es un tu es un tu es un mhm. xam nga man moom ak sumay lex ak yooyu. moom je mhm. peux pas charmer. wante lu am ba am lu ma jot a def nii. du Barthélémy Dias a ko def c'est le conseil municipal de Mermoz Sacré-Cœur qui l'a fait du suma xaalis du man maa délibéré du dara man yàlla rek moom ma jiital loolu rek laa ci am kon nag conseil bi yëpp lañu jaajëfee. d'accord waaw d'accord mais tey yaa ngi ci benn parti booy wax ni dàquñu la ci muy parti socialiste parfois di ngeen faral wax ni mënuñu leen cee dàq euh, tey def leen aussi benn effort. pour wane ni dàquñu ci ngeen mën a nekk ci parti boobu euh, toujours yéen a ngi revendiquer taxawu Sénégal ou taxawu Dakar euh, loolu aussi lan la mën a indi euh, dafay indi benn auto exclusion boo xam def ngeen ko seen bopp lay doon kon. pas du tout au vert et au vivant te man je vous donne rendez-vous incha allah à partir de samedi le 31 octobre biir Dakar le vert ressortira les socialistes reviendront. Mhm. parce que loolu on le doit à la mémoire du président Senghor et de Mamadou Dia le reste c'est ñu ngi ñaanal tamit Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko yàlla xare àjjana wante tey vous voyez les soubresauts au niveau du parti socialiste c'est dommage mais ce n'est que la suite logique lan nga bëgg wax soubresaut lan nga bëgg wax soubresaut non ça veut dire que tey man par exemple euh, lu mooy li ngay dégg ci diggante Serigne bay Thiam Aminata Mbengue Ndiaye wala sa romb na foofu pas du tout parce que en fait dañu ne Aminata Mbengue Ndiaye assure l'intérim waaw d'abord bugguma wax pour jàpp ne ne que Aminata parce que su ma yaay la moom laa faral non Aminata Mbengue Ndiaye nañ ko bàyyi tout tranquille parce que ñoom seen bopp ñoo ko wax la assure l'intérim on lui a donné un on lui a donné en fait un parti mais pourquoi nga ci am choix ci parti boo xam ni yow presque génn nga ci sa. man man mais pourquoi nga ci am choix di pour nga am choix ci ci ñaar ñooñu pourquoi. du question de choix dama xam le parti socialiste parce que foofu laa nampé politique. Mhm. ma xam ku nekk ci responsable yi. Mhm. Euh, lan mooy sa capacité ak sa poids électoral. Mhm. lu ma mën a wax ci gàttal dans un PS normal un PS normal laa wax ok Serigne Mbaye Thiam na ne que mënul nekk secrétaire général bëgguma sori ci wax ci moom xam na ko. ah mais pourquoi. non mais parce que ah mais Barthélémy lu tax. par exemple dit, wow. je vous ai dit que j'ai j'ai fait mes premiers pas en politique au parti socialiste je respecte monsieur Serigne Mbaye Thiam mais je vous dis que dans un PS normal je répète ce que j'ai dit. Serine Becham ne peut pas être secrétaire général du Parti Socialiste, il n'a pas de base politique. La politique, c'est la base, ce n'est pas les réseaux, ce pas les couloirs. OK Et ce n'est pas l'escroquerie politique. Aminta Mengai, on l'aime ou on ne l'aime pas. Aminta est une icône et elle restera une icône pour les socialistes. à tort à raison justifié injustifié mais ça reste Aminata ah, Mbengue Ndiaye. demal demal aussi ci base mais demal est-ce que est-ce que mi ngi am base ba léegi est-ce mi ngi am base ba léegi aussi. est-ce que mën naa développer est-ce que mën s'il vous plaît est-ce que mën naa développer s'il vous a hérité de l'illégalité et de la compromission elle assure cet intérim on reste dans l'illégalité et on fait une compromission non alors expliquez ko en li ngay wax dafa am solo xaw ma nag nu may waxee nag baal ma rek lu may inégalité inégalité ah, mooy lu tegul ci yoon lu jaarul ci yoon waaw mooy lu baareego voilà baareego mm-hmm. parti socialiste dernier congrès mi ngi am 2014 ñu naroon renouveler parti bi 2018 man 2018 ba ñu bañ a def congrès man dama porté plainte Ousmane Tanor Dieng ak parti socialiste tribunal pour faux et usage de faux en écriture parce que le l'article 20 des statuts du 15e congrès dafa ne secrétariat exécutif national moom day préparer les réunions du bureau politique et du comité central waxul day décider pour le bureau politique wala day valider pour le bureau politique tey statu bi dafa clair congrès bi dafa ne pour nga changer nga soppi euh, texte parti bi congrès kese moo ko mën a def te mënu ko def ñu dem ba ci biir comme dem si yàlla Ousmane Tanor Dieng dafa bëggoon des avec le président Macky Sall mais xamoon na tamit la température dans le parti ils sont arrangés ñoom ñu changer les textes pour dire que le secrétariat exécutif national et pas le congrès qui a changé les textes mais ñoom ils changent les textes pour dire que le secrétariat exécutif national peut décider valider approuver entre les réunions de bureaux politiques ou les sessions du comité pour loolu violation la woon flagrante mooy comme tey ci ci gàttal mooy comme tey suñu waxee tey gouvernement mën na voter budget à la place de l'Assemblée nationale ça veut dire que depuis 2018 la direction du parti socialiste mooy kàngam yu nga xam ne ñoom ñoo ilif parti socialiste amuñu benn mandat bu leen militants yi jox pour ñu ilif parti socialiste kon nag illégalité moom Aminata Mbengue Ndiaye doon moom lay assurer intérimam ok kon nag ñoom ñoom su fi Ousmane Tanor Dieng nekkoon ba tey kenn ci ñoom tey amul sañ-sañ wax lu mu wax tey nii ci Aminata Mbengue Ndiaye Aminata Mbengue Ndiaye fu Ousmane Tanor Dieng toogoon fa la toog fu Ousmane Tanor Dieng taxawoon fa la taxaw kon nag di attaquer Ousmane Tanor Dieng ah, excusez-moi di attaquer Aminata Mbengue Ndiaye c'est lâche et à la limite à la limite j'ai le droit de le dire je suis militant du parti socialiste c'est de l'indiscipline de parti si Serigne Mbaye Thiam revient sur ses propos il doit être exclu du parti comme on a été soi-disant exclu que ñun lu tax gars dañu ne que PS dañu ne ko congrès PS dañu ne ko militant indiscipliné nga ko nga ko nga ko nga ko nga ko jàppee parce que ce que Serigne Mbaye Thiam a demandé un peu de transparence mais ñoom ñun tamit. non non il n'a pas demandé ça il a dit que war nañu mën a dem ci congrès bëgg naa jiite parti socialiste ambition mu wax sañ na wax ko. kan moom Serigne Mbaye Thiam. moom Serigne Mbaye a wax loolu Serigne Mbaye Thiam su demee ba nekk intérim bi na leen Serigne Mbaye Thiam wax fan la ñu bind biir texte parti socialiste. que l'intérim a une durée de six mois ou de huit mois ou de un an binduñu ko fenn su ko neexee mu intérim. mais sens ba 2025 mais bon sens ci intérimaire amul bon sens bon si si. xam nga tax amul bon sens non bu ñu ko bindul fenn rek bon sens. est-ce que xam nga parce que le PS. a décidé de se muter en mouvement de soutien avec Serigne Mbaye aussi à la manœuvre loolu mooy dëkk maintenant chacun son tour chez le coiffeur dama ne Aminata Mbengue Ndiaye na nga intérim ba abadan laa wax parce que loolu c'est ce que vous avez fait comme choix. Vous avez fait le choix d'être un mouvement de soutien à la solde du président Macky Sall. dans cette dynamique. Vous n'avez pas besoin de renouveler le PS parce que le PS est mort. Donc yow euh, illégalité boobu. waaw moom ngay moom ngay moom ngay moom ngay moom ngay applaudir. moom ngay tàcc applaudir je le constate comme tout le monde. waaw non mais boo nekkoon boo congrès lu tax la lu tax moom waxu ko laaj leen ko moom Ousmane Tanor Dieng bu congrès lu tax waxul Ousmane Tanor Dieng congrès. mais parce que Ousmane Tanor Dieng feu Ousmane Tanor Dieng encore une fois de plus paix à son âme mais son mandat a pris fin en 2018 à partir de 2018 Ousmane Tanor Dieng occupait une fonction sans aucune légitimité politique si ce n'est pas de l'illégalité daanaka lu jaarul yoon si ce n'est pas de la compromission pour le pouvoir lan la maintenant tey Ousmane Tanor Dieng n'est plus de ce monde. mais da nga évoqué léegi daaw da nga da nga da exclusion euh, Serigne Mbaye Thiam ci propos yi nga xam ni wax. Serigne Mbaye Thiam a posé un acte ci texte du parti socialiste. c'est considéré comme de l'indiscipline de parti et s'il revient là-dessus il doit être exclu mhm. parce qu'on a été exclu que pour ça il a nourri une ambition nous aussi on avait nourri une ambition on a été exclu pour avoir nourri une ambition lui aussi il nourrit une ambition. mais qui n'est pas normalement acceptable actuellement parce que le PS ne plus un parti à la conquête du pouvoir. C'est un mouvement de soutien. Mmh. D'accord euh, je pense que mënoon nañ ci gën a taxaw mais malheureusement temps bi daf ñu dab te ñu am beneen yeneen point yoo xam ni war nañ ko mën a aborder euh, mu aju ci sa relation ak la l'ancien directeur euh, de Dakar Dem Dikk euh, dem ngeen ci yoon à fois audience yi nga koy absenté c'est lan moo ko waral. c'est-à-dire argument que d'argument la wala lan moo tax. Euh, première fois dafa nekk man maa laajoon euh, renvoi wala report c'est faux parce que apparemment moom sax xam na ko comme il dit que avocat la il fallait il fallait déposer je crois une caution pour ce qu'on pour qu'on puisse enregistrer dossier bi loolu la woon. deuxième fois bi ñu dem foofu ñu dem foofu gars yi dañuy report euh, dañuy dañuy dañuy report parce que moom tamit dañ ko plainte mais bii report bi nit da ngay wax dëgg tax yëguma ko woon. dama doon nelaw dama doon nelaw ma yeew xool téléphone bi xool avocat yi di ma woo ñu laaj foo nekk ma leen mais man naa ngi kër gi di nelaw ñu ne ma mais procès bi tey la ma leen procès bi ak kan parce que man dama bëri procès dama bëri ay dossier xamatuma sax dossier ñu toll ñu ne mais non dossier bi ak waa ji dem dikk mu ne waaye kii moom mi ngi mi ngi fi ba léegi man tegoon nañ ko daxaafe bi jeex na ñu ne ma non mais dossier bi mu ne moom d' parce que tout de même pour man dossier bi lan la da nga waxu dëgg da nga fen euh, sàcc nga. mais non non non bu ko yemale ak lu man a am. diffamation mooy soo waxee ci nit lu amul comme ne dama daw je viendrai au procès à la barre pour expliquer au au tribunal que l'homme qui est là en face de moi est un voleur je vais le démontrer est un menteur je vais le démontrer est un escroc je vais et en plus je vais même rajouter c'est un idiot heureux. la preuve il a été renvoyé de fu mu nekkoon parce qu'il n'y a pas plus idiot que lui te mooy dëgg maintenant nag si que j'ai on ira au tribunal je vais prouver que c'est un menteur un voleur et un escroc doublé d'un idiot heureux voilà. ah mais xam nga loolu loolu li nga ci yokk noonu xas xaste boobu. du xaste man tubaab laa namp. idiot ça n'existe pas en wolof. man tubaab laa namp moom laa jàng moom laa namp xaw ma nu ma koy wax ci wolof c'est un idiot heureux idiot xam ne nii bon voilà. yow nu ngay demee ak moom nu muy demee bokkul. waaw ah, mais lu ak lu mën a am ci yoon moom dina dem. mais man te loolu respect la boo xam ne aussi jox na ko. c'est le prochain non je je vous que je m'excuse je l'ai oublié dama doon nelaw man kenn mësuma woo tribunal dama tribunal mais bii dama doon nelaw dama ko fàtte. ok dama ko fàtte je je m'excuse. Barthélémy tribunal tamit. je présenterai mes excuses au juge. d'accord pour ne ko dama mais naka ngay dundee teraanga bi nga ni président de la république ko defal sa sa te ngeen bokk kër muy Jean Paul Diaz bokk ci parti politique mu def nomination nommé ko comme envoyé spécial loolu naka nga koy dundee ak ki nga xam ne yow jàpp nga nii euh, sa sa adversaire politique la. non man je ne commande pas les décisions du président Macky Sall. moom non mais commenté wu mais mais mu jëm ci sa ci sa wajur laay wax su ma wajur sa papa mais man su wajur wax naa ko déjà Pape Ngagne nee naa su ma wajur xam moom ak Macky Sall 2012 la papa moo nekkoon directeur de campagne yu Macky fii bi Dakar te Macky Sall la may dégg. waa Macky 2012 ñu ngi may dégg euh, suma papp may sàkku ci moom ci 2012 mu jàppale Ousmane Tanor Dieng man doomam la ma ñëw sukk ci kanamam ne ko papp dimbali ma si te nga jàppale Ousmane Tanor Dieng mais dafa dem jàppale Macky Sall kon nag tey su président Macky Sall jàppee que tey dafa nar a nommer Jean-Paul Dias c'est son choix wante lu ma leen mën a wax mooy lu Jean-Paul Dias amul ci nguuru Macky ba tey man maa tax. parce que le président Macky pour moom suma pap lu ma sant moom lay def wala moom lay wax te man suma kër demeewul noonu doxewul noonu. Mhm. mais nomination bi du am dara lu mu lay gêner ci say critiques. Euh, pas du tout man je di dis sol chose nommé leen ku leen neex wante bu leen fi troisième mandat xanaa loolu nag wax dëgg yàlla loolu mën naa am naa sañ-sañ di ko wax bu leen troisième mandat parce que man lan nag laay wax bu leen yoonal parce que fii ñëpp a yeewu. Ngaaka du yeewu Sénégal te tànk yu ngeen nekkee nii du dëgg du yoon te démocratie jekkul ci tànk yooyu dangeen nekk ci ay tànk troisième mandat tegg leen seen tànk rafetul jekkul. la ban ban ban lan nga mu gis lu la mun wax ni dañu teg seen tànk ci troisième mandat. lan mais ku fi wax troisième mandat. Macky du ko def ñu dàq la mais waaw. ku fi wax troisième mandat Macky daf ko doon def soo amulee promotion on te maintient bu ci tegu tamit mais ouvrez vos yeux. nii wii nii non loolu fan la am nii wii nii non qu'est-ce que ça coûte au président Macky Sall de dire je ne vais pas briguer un troisième mandat. mais il l'a expliqué nii wii nii non expliqué na ko explication bi peut-être moo la doyul yow. yow yow yow yow yow nii wii nii non daf la yow daf la doy. non nii wii su ma waxee waaw. waaw man na indi problème ci suma camp ma waxee déet mën na indi la mais attends loolu logique. war nga ko mën a war nga ko mën a ah soo ko gisee noonu tamit ma nangul la ko. voilà euh, jërëjëf Barthélémy ma bàyyi la bu fekkee am nga message booy euh, passé euh, s'il vous plaît nga passé ko. mais merci beaucoup euh, Pape Ngagne j'espère que bon. Mhm. Euh, l'émission am nañu ci jàngat. Mhm. et puis bu ci des rek mooy ñaan yàlla yàlla yokk fi sutura bi. amiin et puis di tamit me permettre bien sûr je peux je, je peux que me parce que je suis. Mm -hmm. trop petit pour interpeller le président de parce que du ko sénégalais yi ji euh, moom mooy nar a delloo njukkal te sénégalais xaaruñu ko ci fu mu bëgg a fële noonu. Mm-hmm. moo tax je lui demande franchement de de se ressaisir na wax sénégalais yi mu leer seen bopp ñu ànd ak dal bu bu troisième mandat bu mu fi am c'est pas la Côte d'Ivoire c'est pas la Guinée. Mm-hmm. voilà. Mm-hmm. merci une plus. et à aussi merci. Euh, jërëjëf Barthélémy Diaz man aussi ma ma gërëm la yow xam nga bu baax que fierté euh, pour ma lay recevoir ci euh, plateau Faram Facce yaakaar naa ni loolu itam ñi nga xam ne ñoo téléspectateurs yi xam nañ ko te li ko waral du dara lu dul sa courage ci sa ay ci li nga gëm. loolu moom ñu bëgg la ñu bañ la nit ñi nangul nañu la ko nangu nañu ne li nga xam ne moom la gëm loolu lay wax te loolu itam lu am solo la nit nag ni ñu koy jàppee mooy constance. te vraiment sa constance gis nañu ko. Eh, te te itam dafa nekk fierté ci suñu génération ni may faral di ko waxee. Mm. nit am ci constance dafa am solo. donc fierté nga pour ñun aussi ñi ngi lay euh, ñaanal yaa xam li nga bëgg ci politique yàlla defal la ko. amiin euh, jërëjëf kon mbokk yi doon seetaan seen émission euh, faram fàccee ñu gërëm leen bu baax wax naa ni du. guléet la sax maanaam ñu def ko alxames mais li ko waral yaakaar naa ni xam ngeen ko démb lañ ko bëggoon def am jafe-jafe technique tey aussi jafe-jafe bi am ci wàllu baat bi ak wér gu wàllu wér yaram gi yaakaar naa ni wér gu yaram gi gis ngeen ko mais ñafe dañu ba góorgóorlu jéem leen ko defal rek metti woon na nag trop mais dañuy góorgóorlu parce que defal leen émission jaaral nañu lu nekk ndax ni nga xam ne noonu ngeen koy taataane ñu ngi leen di gërëm di leen jox rendez-vous incha allah beneen yoon bi ci yàlla andee jërë ngeen baat bii nga xam ne moom la